alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah. waaw ah, salaamaaleykum wa rahmatulah mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu bu baax waaw ñu ngi ñëw fii leeral leen leen fii nga xam ne mooy xabru baay bi. ci liñ fi waxoon vidéo biñ fi génnee moom lañ leen bëgg a leeralal da ngeen xam ne liñ defoon noonu dara amu ci waaw ñi lañ koy gën a mën a leeralal nag defe naa mooy ñi fi nekk di fi liggéey sañ jox leen place bi pour ñu di ko wattu guddi ak bëccëg waaw maa ngi fi nekkal ak sumay mag waaw ak man mii di bàyyi alaaji moo tax ma ñëw tey ñi oh, ñu jàppale ñi ci liggéey bi pour ñu wane carrément ne liñ doon wax ci vidéo bi paas yi ñu ci diggante imaam Hassan bi ak Seyda Ya Fatimata Zahra dara amu ci place bi ñu leen denc nii néeg bi 4 lay ñëwee 4 boo xamante ne nii imaam Hassan Cissé fi ñu ko denc ak fi ñu denc yaam Fatimata Zahra am na différence 10 70 centimètres wala 80. centimètres yoo xamante ne nii biñ jëlee ci place suñu waajuru jigéen wi liggéey nañ ko ba pare su gisuñ dara loo xamante ne nii laal na wala jege na raw du xabru imaam asan bi kon loolu ñu leen yónnee muy vidéo boobu képp koo xam ne nii jot na ko na ko effacé sa xam na loolu amut du dëgg lu toll ni imaam asan Cissé ni ko yàlla màggalee li yàlla def ci moom xam-xam bi ko yàlla may ak barke bi ko yàlla may yaakaar naa ne buñ demee ci palaasam bi di fi denc juróom bi jigéen war nañ kaa mën a ormal ba dara du ko laal ñi ñi fi nekk nag di liggéey nga xam ne ñu leen dénk nag ñu wuutu fi suñu baay ñu dénk ñu xabru bi ñu di wuutu fi suñu baay di bokk ci liggéey bi heure bu ñuy liggéey ci lu mel nii rek ñi ñu ngi teew rawatina nag bi ñu indilee kilifa goo xamante ni nii mu ngi fekkale si di ñuy jàppale di ñuy wan muy kan muy Mbaye Mbaye Cissé mi nga xam ne nii kenn mënut a wax na xàmmewut ko ci dëkk bi ci maandoom ci ragal yàlla am ci lépp loo xam ne yàlla dénk ko ne ko ba pare nii wëlbati ko ne boole ko ci imaam yi kon kooku wër na jub na defe naa ne amul dara loo xamante ni ñu ngi koy def moom mu taxaw téeméer ko rek di ñu seetaan ñiy def loola. indi nañ ci keneen itam doomi imaam Assane Cissé Mouhidine mu ngi taxawoon ci bis boobu bi ñuy liggéey. Euh, place soxna si xanaa kooku moom itam yaakaar naa ne du bàyyi mukk ñiy def loo xamante ni nii du yoon waaw man mii itam nekk fi ak suma mag yaakaar naa tum du ma bàyyi ñeneen ñiy def loo xamante ni nii lu teguwut ci yoon la kon li ci mën a am lépp mooy dañ leen koy leeralal gis ngeen place bi ni mu mel nee naa leen léegi néeg bi 4 mètres la 4 mètres bi mu nekk moom bi mu ci nekkee Imaam Assane bi mu ci nekkee fi ñu denc waajuram bu jigéen man na quatre-vingts centimètres wala quatre vingt boo xam ne nii gas nañ pax mi ba pax mi pare su gisuñ dara loo xamante ne nii laal nañ ko ci xabru imaam Hassan li ngeen gisoon ñi teg morceau boobu muy morceau bu weex bi dañuy protéger toujours buñ gasee pax mi ba pare ñu jël morceau bu weex boobu muur ko ci pax bu bees bi ba nga xamante nii liñ ciy dawale lépp mooy li ci am nii mooy photographie ñëw photo ko wala kenn ñëw photo ko rek sànni ko ci net bi loolu lañ ci doon daw moo tax ñu jël morsi bu weex boobu muur ko ci pax mu bees mi fi imaam Assane Cissé tëdd kees gu mag gi ci nekkoon bi ko dëppoon bu mag bi bu maron bi boobu leen dindi biñ ko dindee nag ba ba jot bàmmeelam bi dañ kaa defaraat ba mu baax dañ kaa defaraat ba mu baax daal di jël nag morse bu weex bi nga xamante ni moom lañ muuree woon kees gi teg ko pour di ko protéger liggéeykat yi nga xam ne ñoo nekk di liggéey ci biir bañ koo laal léegi nag ki photo woon appareil boobu ki ko photo woon vidéo boobu mu ngi taxawoon ci fenêtre bi ci gannaaw ndaxte période boobu fi ñuy liggéey dafa am poussière ñu ubbi feneetar bi mu gaaw profité tiire ko sànni ko waaye loolu ñu leen xamal mooy dara amu ci Imam Assane Cissé ni ko yàlla màggalee ni màggee duñ dem ba ci biir bàmmeelam di ko wàqi di ko wàqi di ko wàqi ba jot ko génne ko ci kees gi mu nekkoon teg ko ci kaw loolu xel nanguwut ko xel nanguwut ko képp ku kuñ koy wax itam loolu amut ñu ngi koy yëgal mboole mi jullit mboole mi taalibe fu ñu mën a nekk ci àddina bi rek képp ku jot vidéo bi nga xam ne nii gis nga ma ci rek sa xam ma sa xàmmee ma ci place bi rek ñu ngi lay xamal na leen loolu ñu defoon dara amu ci dàq nañ ko dara amu ci sa mosul am fi ñu def yaa faati fi ñu def imaam Assane am na différence am na différence lu tolloo quatre-vingt-dix wala quatre-vingts waaw kon yaakaar naa ne yàlla na yéex keneen sax mën na nekkaat ci diggante boobu kon am na yaatuwaay am na distance ba nga xamante ni nii laaluñ ci wàllu imaam dara dara dara dara dara wax naa leen léegi na leen doomu mu ngi taxawoon ci bis boobu jamono biñ koy liggéey gannaaw buñ julee si subaar ba pare dañ ko commencé ni talaata talaata boobu dem nañ ci dem nañ ci ba guddi ñu daal di wàcc noppalu waaw bi ñu paree doomam defaraat nañ kii ba mu baax ñu muuraat ko loolu yëpp ñi fi nekkoon di liggéey itam tànn nañ leen ba nga xamante ni nii amul kenn koo xamante ni nii danga ci génn rek daal di wax nii la pax mu mel wala nii la kii ba mel te loolu yëpp dañ leen kaa dénk permettre leen ko ne comme ay kilifa la ñoo fi tëdd li ñuy bëgg mooy ku maandu ñu seet ñu maandu ñu dugal leen ñi liggéey barab bi te biñ koy def itam suñ sëriñ mu ngi toogoon Mbaye Mbaye Cissé doomi imaam Hassan Cissé ñu ngi toog ah ñun ñun dénk xabru bi itam ñu ngi taxaw di surveiller loolu kon yaakaar ne ne amul benn dara loo xamante ne nii lu ñuy dëggal la ci vidéo boobu amul man mi taxaw di wax yéen man xam naa ne amul waaw lépp lépp lépp waxuñ ko ci dëgg teguñ ko ci ci woon ki ko photo ci fenêtre bi la taxaw photo ko sànni ko kon lu toll ni Imam Hassan Cissé si ni ko yàlla màggalee ak dayo bi mu am ci yàlla ak ni mel ci baay yaakaar naa ne war nañ ko mën a ormal ormal boo xamante ni vidéo boobu waruñ ko woon a génnee sax di ko wan doomu aadama yi bañ koy gis bu ngeen gisee vidéo bii nag ma def nii nag may interview wan carrément ne képp ku jotoon ci vidéo boobu rek effacé ko na loolu amut waxut dëgg képp ku ko jot rek na nga ko effacé waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah